Euh, moom euh, borom Farafina ñu ngi koy gërëm di ko sant astu nag euh, ñu ngi lay présenté Sénégal gis nga ñëw teranga bi nga xam ne moom la ñu indil di nee nañu petit déjeuner xam nga ne ku def lu mel nii ne leen petit déjeuner bés bu defee déjeuner ñëpp daa day kontaan astu ni ko joolaa yi di waxee kasu may oui ñu ngi lay gërëm Badji Bassène Kumbalang fii mooy sa dàkkantal ndax xam nga ne yéen ñu baax ngeen <laughs> waa astu nga ne. dollil boobu nga dolli ma. Badji Bassène Koli Jàmba Pereira. Koli Jàmba Pereira. Pereira bi ci Joolaa bi fekk si njaago bi. ah kon yow am nga sa bàkk bu baax. léegi Astou tey sa présence fii ci plateau Kouthia lan moo ko waral suñu diggante ak yow. Euh, déjà ay waaw. mais li ñu gën a yëkkati tey mooy ñëw pour féliciter la ci prix bi nga am. waaw allah bi ñu ci gën a neex mooy. meilleur comédien africain. merci jërëjëf tàcc na loolu waay ah. jërëjëf jërëjëf. loolu foog ñu ñëw. Mhm. sargal la. Mhm. sargal sa équipe. Mhm. Euh, sargal ñi ngay àndandool. yaay Fall Ndeye Faye ñoom ñëpp. ndeysaan ndeysaan. waaw moo taxoon ñu ñëw lii def si benn ñëw seet si leen rek. waaw parce que Farafina pare na pour weer bu ne. mu ñëw indil leen añ. Euh, wax dëgg yàlla euh, heure bi émission bi di jàll dina fekk ñu lekk ko ba pare <laughs> waaye dafay rafet mag kii. jigéen ju mën góor la dafa nekk ci capital immatériel déparé ak gëm li nga xam ne moom mooy gastro nekkul di ko fooye de da ko jàng ba pare yàlla may ko ci mu nekk koo xam ne ci séminaire yi ci anniversaire yi ak ci yi nga xam ne moom mooy euh, grande conférence yu mag yi dafay teg tànkam euh, Farafina gastro génn na Sénégal dem ba bi te pourtant dëkk yooyu am ñu ko fay def waaye moom ci boppam dañuy kontaan ci moom ndax jeune la boo xam ne boo demee Farafina fekk ay jeunes yu mu jël kon kii ministère de l' emploi et de la jeunesse daf ko war a jàppale ngir gën a mën a massifier ratina un nañu wax de mais dina am ba parce que yow danga nga motiver ñu ngi lay gërëm di la sant léegi nag euh, euh, lii lan moo ci nekk nii ndawal gi waaw ñun dañuy def ay plateau cocktail de grillade la <laughs> euh, kii nu tudd ñaari hôtesse na ñëw ñu wane lii rek heure boobu ñu koy lekk dina fekk lekk nañ ko ba pare amul amul danger parce que tamit ñoo muur dara te xamuñu nu mu koy ibil teg leen ko nii wane leen ko nii gars yi gis ko mu ngi noonu ibil voilà xoolal lii dafa mel ne ay ay dibi de gis nga pigeon yooyu noonu ci bi ah ak lii la ginaar la war a mis doy muural muural muural ñu ngi lay gërëm di la sant di kontaan ci delloo njukkal bi nga xam ne moom la ñu delloo njukkal yal na yàlla defal jàmm sa numéro téléphone nag il faut que Sénégal xam ko. waaw 77 453 waaw 25 35. naa la xamal dara. bu ne la 10 heures pile de dinañ ñëw. 9 heures 45 dina leen fekk foofu. ba pare seen spécialité nag. jus naturel. di tax buy. gingembre. cocktail bu la ko astu jàppalee ba defar la ko. dootoo naan leneen te du am colorant. waa astu sa secret ci gastronomie nii wax dëgg yàlla lan lan la war doo ko waxee fii da ngay bañ gaa ko. non la rek. la ak passion. waaw amour ak bëgg passion yàlla na yàlla dafa jàmm ibbil la suñu buntu te gars yi ñun duñu waxtaan duñu wax loo xam ne amul de asu mii ku ko woo sa anniversaire ba mu dressé la table sa cocktail ba mu dressé la table ba defal la ay jus ba ak teew asu tee maanaam attaay asu mun nga cee seetu waaye saveur ba ci biir nga ko yëgee may leen ko loxo joxal numéro téléphone ni nga ne 77 453 25 yàlla na yàlla dafa jàmm Farafina jëlal oh, waaw waaw waaw dañoo baax dañu ñëw ginnaaw say waajur ak say client yëpp yaa ngi remercier ñëpp c'est personnel yoro ak ay yoro mu nekk ci kii bi ci lakk bi waaw yoro Ousmane si dibiteri bi Marie ak ay sama gérant ak Aïssatou Aïssatou ñëpp maa ah, leen di gërëm vraiment une compétent xam nañu wax ak boo wootee benn yoon appel bi rappel dañu lay topp di la rappeler boole nag ay livreur yu lay gunge ba sa kër duñ jóg livreur dañu am GP doo fa nekk naan ay jàddal fii jëlal di moom ci boppam moo njëkk def livraison GP da lay localiser indi la foofu asu yaa ngi noonu yàlla defal jàmm waaye ah yàlla defal jàmm asu da nga baax jërëjëf